leen baal wax di leen baal wax di ñaan koor ak suñu jàngal suñu naat lépp suñu borom naan na wax bu loolu jàllee wax di lu gudd xanaa sant yàlla bu baax ci wér gi ñu may ak kàttan gi ñu may bañ mën a def ndigal bi def ko ñu ko bëggee bëggee ñu cee jàmm bu màgg rek nga fàttali ko tuuti rek ci xew-xew jamono yi ndax day mel ni wàllu bi léegi day mel ni wàllu bi léegi taxawaay bi mu war a taxaw ci seen njaboot léegi ko loolu nag li ko waral mooy wut àdduna rek ak doog yëpp yomb ndax loo xam ne wóor nañ doog la borom dafa xamaloon ni alali àdduna ak njaboot fitna la waxal tam ne almaal wal banuun ziinatul hayaati dunya dëgg naa mooy waajtaayu àdduna mooy taaru àdduna waaye waxoon nañu tam ne fitna la seen alal ak seen doom fitna la te ku ne gis nañu fitna ji moom mi ngi yokk bu fitna nag moo gën a nekk daal te ku ne xam ne day wuti àll nit ñëpp daw nañ ci ñàkk rek seen njaboot léegi xale yi ku juddu rek des na jàngal alxuraan des na yóbbu ci daal di tërbi nga tërbi ko ñu yàlla bala am ko ci baax yoo xam ne soo ko mën a liggéey amal sa bopp mën a amal say wàll waaye léegi ci football yeeg lamb yeeg yeneen ak yeneen jàpp rek dañuy jël seen njaboot résultat bi ñu ngi ko gis mu ngi rëcc bu baax a baax baax ndax xam ne nekk amuloo mën ñun ñëpp léegi dañoo daw jël gaal ne ko imaam Saafi waxe ca waayam yooye ñett way yu gàtt yooyu dañu rëbb raaytu naasa qad maalu ilaa man indahu maal fa man laa indahu maalu fa anhu naasu qad maalu raaytu naasa qad dahabu ilaa man indahu dahab fa man laa indahu sahab fa anhu naasu qad dahabu raaytu naasa man fadda ilaa man indahu fidda fa man laa indahu fidda fa anhu naasu man fadda mu ne gis na ni ñëpp daw jëm ci sàpp alal alal nag benn mu jur wala mu ak jabar ndax daa wax bu njëkk mooy euh, soxnaa ko doon ak yuur wala jàppoon alal te alal firnde la nekk suñu borom waaye nag ku ko am toon daal na njëkk ngi jëm ci yow waaye ku am dem kenn doo gis kenn mbooloo mu ñëw ci yow nag njëriñ benn lor dong lay firnde dong lay doon mu ne gis na itam nit ñi daw jëf yi am wurus wala koor xam nga loolu ba tey alal la waaye ku am itam doo gis gis na itam nit ñi daw jëf xaalis ñu am xaalis waaye ko mu xaalis doo am dara ko mu xaalis doo doo gis kenn te alal ak doom nag daa jóge ëllëg fenn yow ma laaj sama maam wala ma ko tolloo ak seen ëllëg xol bu sel rek moo wax yéen ñëpp suñu yaakaar tee nag loolu dafa avancé bi wax ma ma xam ne waxtaan si tax bi na waaye wax yow loolu la soxlu alal soxlu dara tey dañu kan si kitaab wala xadis wala daa jëm fi dëkk wala daa jëm saab léegi nag ñun suñu kaw mooy bu xaalis rek dàq ak mu taa taa su taa taa su mu dàqal dàq loo xam ne bu wëree doog la nag juróom te sëñ bi dafa sanc dëkk bii ngir jaam yàlla sanc ko ngir màgg sanc ko ngir dig te léegi loolu manqué lool ñu ngi xas nekk lu gën daal ku la wóor ne moo gën a jub moo la gën a màgg ne mu foog yow waaye wuroo fay ko xas ak ak ak naaj te loolu dañ ko war a saxal ci xale yi saxal ko suñu bopp bañ jàpp ne mooy daal yenn sëriñ itam amul ñàkk fay boo xam ne dara jëloon na ndax musukat yi rek dañuy jox seen alal ko ko yittewoo jox ñu ko kat soldoo seen way doon ba gàtt nañ jeex waaye dañ koy jox ñoo xam ne aw target lañ jël la ci te am na sama kër boo xam ne si o dafa ko dafa am na ñu mel noonu ñoom mooy waxtaan yi musukat yi man ko man gis nañ ko am ndax fitna yaa baax di la wóor ni baaxoo ko amul njëriñ yaa bon di la wóor ni ko wóor ko dara te fitna yoo gis ta taal boo gis mu tàkk teel na te ñoo taal te bu ñuy fay duñ ko fekk loolu nag pour ñun jëriñ ko war a rawat na ñi nga xam ne ñoo bokk seen tubaab nañ doon taay bi nañ doon ñu mën dëgg dëgg dëgg dëgg nañ sa roy suñuy waju roy suñuy sëy ndax man amul waju amuñu waju sëy dañ am waaye seen tubaab yar nañ njaboot ñi defar bari na dama ci indi Cheikh Ibra Fall ci gàttal bu ne sëñ Tuubaa mooy mooy dëkk bi Cheikh Ibra Fall dafa wut lépp jox ko sëñ Tuubaa wax naa ko ba tey yoonu mooy bu daa bàyyi taxawaay kenn di kàpp muy Cheikh Ibra Fall ndax daa boole sëñ Tuubaa loolu nag mën nañ ko teewee bañ a boole sëñ Tuubaa dara li mu nekkoon ñu nekk ca suñu kër say kàtt li mu bañoon bañ suñu kër say kàtt bi daal laa yaakaar su ko defee lañ bëgg daañu ko am te it li ci dolli ko mooy sëñ Tuubaa itteem yëpp mooy jaamu yàlla ak liggéey itteem yëpp mooy dimbali nit ñi ak defal leen léegi nag loi yi nga xam ne dugal ko ci biir asam dugal ci biir réew te mu ni dëppoo ko ngor dëppoo ko biir dëppoo ko tànn te ko fi a jàppale nañ seet ku jub ku baax ku bëgg li sëñ bëgg di ko bañ ñu ko jàppale nan daas fanaan nan ñëpp nan wut suñu ko bu ñu ku ne ci njub ne ci dëgg ndax moo ñu jiitee dëgg ak njub ñu jàppale ku mënut leen naan ñu maa ngi toog di daal mooy wax bi salaamaaleykum wa rahmatulah